y Askan Wi coalition politique la bu coalition politique bo xamné dañ ko lal ci ay ay gors été ko ñu lal ko ci ay way yu leer nañi yo xamné été objectif coalition coalition été Askan Wi moy li a ki ñu faloon mu fàtte li ko fal ba jàpp ni moom dafa donn ba tax mu ne lépp luy opposition ci réew mi dina ko faagaagal te li gën a màndargal ni loolu lajj na mooy yeewi askan wi ndax leer na ma ni tey fu mu toogoon ñu tegal ko boolu ceeb bu baax sax bu xelam demee ci yeewi askan wi rek boo moytul mu suur kon léeg-léeg spéculation yi am wala ñu binduloo ay nit naan yow askan wi léegi mu tas rivalité diggante ma Masamba ak Mademba yooyu ay manœuvre politique la waaye ñu dalal xelu sénégalais yi nit kóolute gi ñu am ci yeewi askan wi kóolute googu ñu ñii ñu ngi sàmmanteeg moom parce que responsabilité la te non seulement fi mu nekkoon ma nga fa ba léegi

waaye gisuma ci àdduna kuy dund di yi ngelaw yàlla gi te mën maa tere ma def résultat yu mag a mag a mag fee ci si coor allah parce que constitution ak loi wu dëkk bi dañoo jox ay attribution yu leer nañ maire bi niñ ko joxee pouvoir central bi maire bu sàggan nag ba pouvoir central bi ñëw jalgati loolu joggati la yow yaa bëggul liggéey waaye pour bañ ñu fragiliser suñu maire yi moo tax nañu ñu ne nañ leen dajale ci kuréel gu bees goo xam ne bokkul ak association des maires du Sénégal bi ñu xam fii parce que ñun dañoo am ay objectifs dafa am lu ñu bëgg ci maire yi ñu dénk ak président conseil départementaux yi ñu dénk dafa am nañ ci bëgg ñu bëri ci ñun pour ne pas dire ñepp sax dañoo ñëw àndaale programme bi ñuy ñëw lolu du du lu ñu tam gis ci élection département wala commune waaye dañoo dañoo fenk ay programme ñëw présenter askan ay programme am yéene nak ni programme yoy bu soobee yalla dañ koy appliquer ñu ne nak maire yooyu ak président conseil départemental yi soxla nañu ku len jappalé ci encadrement ci formation parce que lo gis rek dang koy jang dank dank ba ngay ñu dañu objectif am bu ñëk moy suñu maire leen rek leen suñu président conseil départemental ñu leen rek leen suñu élus bëgg nañu ñu continuer am benn lien bu étroit ñoom ak conférence des leaders waaye ñoom ak coalition bi leen fal te loolu mi ngi jaar ci ñu am benn plateforme boo xam ne dinañ leen offrir ay formation bii benn rek la woon wala ubbite bi rek la woon mais régulièrement dinañ leen woowaat ci yeneen euh, thème yoo xam ne yu ñuy tànn la jël ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñu ñëw former leen ci loolu parce que dañu bëgg suñu maires yi nekk les meilleurs maires du Sénégal dañu bëgg suñu président conseil départementaux yi nekk les meilleurs du Sénégal également loolo loolu bokk na ci objectif bu ëpp solo wala ci benn ci ëpp solo ñu ne it war nañoo mutualiser mooy lépp lu ñuy jànkonteel ci jafe-jafe ci ni ñuy liggéeyee ci biir mairie yi kenn ku nekk waruñu ko bàyyi rek moom muy nekk ci jafe-jafeem ak administration déconcentrée nekk ci jafe-jafeem diggante moom ak ñi mu war a administrer waaye ko ci am jafe-jafe war nga am foo ko mun a andee kenn ku ne indi xalaatam peut-être am na ku la ci ëpp gis-gis ñu jàppalante ci loolu ba wàññi problème yi gis ngeen ni maire yi léeg-léeg dañ leen jox ay cër waaye nguur gi pouvoir central foog na ni moom rek moo am cër bu mu jëlee ci constitution ba tax

kaa yu mel non motax ñu ne dañu taxawal suñu benn kurel bo xamne sa suñu bëgg bu ñe nogatu suñu mer wala ñu bëgg leen jaay doole kiko bëgg def na xamni du jakarlo kese ak benn mer waaye yewi askan bi yépp lay jàkkaarlool leader yi ba ci maire yi ba ci militant yi ba ci sympathisant yi ñun duñu togn de prérogative état duñ ko jalgati waaye duñu nangu état central aussi di jalgati suñu prerogative yoy yep nak motax ñu né dañuy taxawal suñu courel tuddé ko réseau des élus locaux du Sénégal en acronyme mu don réel Déthié Fall nag nee na ñun néwuñu ñeneen ñi ay fo lañu waye ñun xamnañ ñun ay réel lañu réseau des élus locaux du Sénégal réseau boobu day dajale ñëpp nak yemuñu ci maire yi dañ ko yaatal ba ci président conseil départemental yi yemuñu ci yewi askat Wi tamit maire bu japp ni par rapport à ses objectifs, ak li nga soxla ci xam-xam ak façon bi nga gérer réseau des élus locaux du Sénégal xamal ni sa place ko ci kenn les autres maires de l'opposition tëjaluñu ko kenn waaye dama ne même maire bu nekkul opposition boo toogee ba gis ni nga sa commune ak ñun offrir plateforme gis nga ko ci réseau sa place nous bi mooy jox nañu suggestion locaux parce que budget municipal est yëpp pratiquement budget municipalité yëpp am na ligne bu ñu voté woon tuddee bëggoon ko na cotisation à l'association des maires du Sénégal ñu jox suggestion tous les maires ñu def virement de crédit voté ko par leur conseil loolu ñu waroon versé ji association des maires du Sénégal nañ ko euh, versé nañ ko revoté ñu versé ko au réseau des élus locaux du Sénégal bi nga xam ne ñoom ci lañu ñu bokk ñetteel bi mooy li nga xam ne droit la texte yi prévoir ko xam ngeen ni am na luy jóge ci état bi di jaar ci association des maires du Sénégal jamono ji mu nekkoon nag benn association mënoon lañ ko verser waaye tey comme ñaari association la nag day jaadu la ca war a ñëw ci réseau des élus du Sénégal ñëw ci la war a dem ci association des maires du Sénégal dem ca parce que loolu àq la te bañuñu ci dara ba ci dem ci devant la Cour suprême parce que noonu la war a doxee un élu est un élu et non on est sous le régime de la liberté d'association nañu xam ni association yooyu du ay institution du loo xam loi moko imposer liberté d'association la maire bu mu neex sax nga ne bokuma ci ben association dama bëgg mu leer parce que dañuy japp ni lélé ay institution la comme ni assemblée nationale nekkee institution wala commune bi loi moko prévoir déedéet amul ben loi boo xam dafa prévoir ni dañu wara am association bu tudd association des maires du Sénégal liberté d'association la dajé nañu sur une base j'allais dire corporatiste daal di créer cette association là état bi reconnaître ko né nak relation bi la bëgg a ak association bi daal di dugal ci loi yi né fonds de dotation bi ni li jóge fii ni lii dina dem ci association des maires du Sénégal donc buñu démé ba am ci ñaar ñaar yoy yépp ku nekk dañu wara xol mo xam ko pro mo xam leneen ku nekk liñ ko wara jox ci lolu ñu jox ko ko ñettel bi moy lepp luy nag international xam les associations des élus dañuy bokk ci ay kuréel defe naa Khalifa moom xam na bu baax spécialiste la ci am na yo yoo xam ne ay CG CGLUA am na yoo xam réseau africain yi la am na yoo réseau francophones la les maires francophones amna amna amna Yo yep n'ak suñu kuréel dina ci abonné te jàpp naa ni moy doon kuréel

gañewoo Ziguinchor daanaka sax Pikine ni nga fexe ba écarté liste moo tax waaye suñ ko jëloon ci commune commune d'arrondissement yi gañewoo Pikine kooku soo taxee ni gañe naa élection yi da ngay nax sa bopp loolu nag bu génnee ci association maire Sénégal gëm naa ni euh, squelettu association moo fa des waaye association nekkatu fa ndax même sur l'international respecté nañu lépp nag waaye dañuy xool les communes les plus significatives su ñuy organiser année prochaine allons organiser fin 2023 normalement euh, le forum mondial de l'économie sociale et solidaire ville de Dakar nous organiser forum mondial de l'eau nous ñu jógee gis ngeen njuuj njaaj ñu def ba ville Dakar mais nous tout am ce sera la dernière fois parce que nous, la mbir au niveau international kon ñi annoncé Sénégal yëpp ni bis ni ki tey jàppaleen ni kuréel googu sampu na dina dajale lépp lu ñu am comme élu waaye ubbi na loxoom ci bépp élu boo xam ne jàpp nga ni li doyen Cheikh Gueye di wax nee na association ba la de baax li mu ci xam mooy champion champion du Sénégal en matière de tàgge semaine bu nekk moom tàgge le grand-père de tell maire et cetera ku jàpp ni nag li nga bëgg ci luy doxal jox jëmmal collectivité locales yi parce que dañu war a respecter les collectivités locales askan bi moo leen wóolu fal leen yaakaar leen ci seen localité waruñoo jël maire tuuteel ko doydel ko ba maire tekketul dara ci réew mi ku yaakaar ni da nga war a bokk ci mouvement boobu di jëmmalaat les élus locaux parce que le développement ça partira de la base pour aller vers le sommet c'est les maires les premiers acteurs les départements les premiers acteurs du développement balaa ngay wax feneen

musul consulter kenn musul concerté wu kenn buy jël décision yi ni mel léeg ñu dajale nit ñi ne concertation fekk ñoom la décider décider nañ ko bu yàgg moo tax ñun ñu waxee ci mbirum yokk député Askan Wi dafa ne bi muy décider pour des raisons politiciennes mooy inondation am Kër Massar ci càgganteem moom ci boppam mu dem Kër amu fa solution mu bëgg a ñu defal ñooñu mu daal di jël une décision politicienne ne def naa Kër Massar département boobu concerté wuñu laajuñu suñu xalaat waa Kër Massar ci boppam laaju leen seen xalaat bi mu demee nag ba ñu war koo jëmmal mu yaakaaroon ni loolu mu def noonu dina tax waa Kër Massar kontaan ba woteel ko mu gañe mu dem foofu ñu duma ko ba sëlëm ko fa ñu ne léegi dañu war a dem élection législative naka lañ koy doxale mu gis ni nombre de députés bi ñu am actuellement posé le problème parce que foo def département nag war koo jox un nombre de députés mu bëggoon ñun ñu jël responsabilité ne dañuy yokk ñu ne ko suñu yoon newu ci ba nga koy def laajooñu débrouiller pour xam nooy def ak say députés mu dem ne yokk na léegi nombre de députés yi yokk na ci juróom-ñaar ñu wax Sénégal yépp ni décision la moom dong du suñu décision waaye nag lañ ciy yokk te di ñaan Sénégal yépp exiger loolu mooy yokk député bi warul tax ñu yokk fukki dërëm ci budget assemblée nationale parce que budget bi ñu jox assemblée nationale dafa ëpp fi mu toll nii li ma leen di wax dama koo xam ndax député la gisuma njëriñ gu assemblée nationale njëriñ Sénégal ci li muy doxee ci actuellement nii ba ñu war koo jox ay milliards et milliards député boo kii budget boo xam ne ñoom ñu yor majorité di ay député séddoo lañu fa nekkee suba ak ngoon séddoo li may wax nag mun nañ ko démontrer tey li ñuy yokk ci peyooru député yi saa yu Moustapha Niasse di fay député yi jël deux cent mille yokk ci enveloppe 200 millions est multiplié par 165 députés 33 millions là. 33 millions nous a 25 députés yu avons ñu chacun 1 million Nous avons te duñu enveloppe kon députés waru justifier ngi enveloppe sénégalais Nous dañoo sonn xaalisu réew mi dañ ko ci ci école yi ci ndaw ak ci am fulla waaye di fay ay politiciens rek yokk fay ay politiciens ñu nekk assemblée di tàccu naan ku aaye wal sa moome suñu Macky Sall waxoon nañu wote sax bu kenn noyyati nañ ko wote su dee loolu rek fukki dërëm waruñu ko yokk ci budget assemblée nationale te loolu sénégalais yi ñoo ko war a njëkk a yokk set député warul tax ñu yokk ay milliards ci député assemblée nationale naan dañuy jënd ay katkat yu bees dañuy yokk carburant bi dañuy yokk lii dañuy yokk lii mooy position yeew bi askan wi parce que ni ñu wax gis nga réew bu ndóolee ñàkk doole dañuy sakkanal li mu yor ñun xam nañ ni coalition coalition la ñu suñu doole bëriwul moo tax ñu sakkanal ba ba def séminaire boo xam ne dikkeewuñu sax cent mille francs te peut suñ ko yóbbu woon feneen ak feneen wala am nañ ko doon defee mu dikkee ñu huit million noonu la ñu war a yore réew lañ ciy génne ci bénéfice nag ñu dugal ko ci njëriñ loolu daal lañu bëggoon wax di lancer un appel nag ci état bi ndax mairie Kër Massar sud bâtiment bu maire bi di dugal mairie bi sax amuñu ko fi mu toll nii te ko andi mooy parax parax bi ñu def ba def découpage boo xam ne baaxul amul benn bâtiment administratif à Kër Massar sud benn bâtiment administratif. dañoo obligé ñoom dem ci seeni pexe bopp dem louer un bâtiment en dehors de la commune de Kër Massar loolu gàcce la comme nag état bi moo yàgg jël les dispositions amoon na sax un programme bu ñu tabaxal maire yu bëri un bâtiment moom mi gaawantu def découpage boobu na góorgóorlu ba defaral commune Kër Massar Sud un bâtiment digne de ce nom ba ñu mën a liggéey ñu ngi sàggane ba pare di créer des retards ba ñooñu mënu ñoo liggéey lañ ca jublu nag xam nañ ko mooy dañuy xëy rek ne commune bi doxul délégation spéciale duñ ko nangu de mairie la boo xam ne Yewwi Askan Wi moo ko gagné jafe-jafe yi ñu nekkee ba mënuñu liggéey xam nañ ko te état moo leen ko teg ne état bi tegg jafe-jafe yooyu ba ñu mën a liggéey ni ñu war a liggéey ñu ngi leen gërëm leen sant salaamaaleykum <coughs> <coughs>